di nuyu sama waa koñ aussi di nuyu sama yaay aussi waaw. tey dañoo xëy rek ñun ñëpp comme ni ñu ko gisee jotandoo information muy génn génnuk àdduna ki nga xam ne moo di Momo ñu ngi koy jaale yow nga xam ne frère frère am nga waaye information bi nan la la dikkee nan nga génn génnuk àdduna ki nga xam ne moo di Momo sa sa waa waaw métti rek métti rek parce que lépp ñoo ko doon defandoo ah, ba ci série bi ñu bokk dañ dem ba benn moment série booleetuñu dërët moo ñu boole parce que lépp ñoo ko doon defandoo. lu ma metti da ko doon metti lu ko metti daf ma daan metti ñu nekk ndowoon somoon comme daaw heure bi daaw 22 août daaw comme heure ma taxaw di wax ñu ngi woon somoon ku ko ne woon 22 août 2022 du la fekk ci kaw suuf mu ne la déedéet waaw ñu doon defandoo lépp ek ñu bokk ndey baay tey dem bi daf ñu metti trop trop trop information bi tey ah information bi comme ni ko ñëpp yëgee rek ci groupe acteurs yi laa dugg rek yëg ko téléphone après sama téléphone sonné ma doog a xam ne dëgg la parce que bi ma gisee stade yi gaw ma ko bi sama téléphone sonné waa Marodi woo ma ñi ma bokkal série bu woo si laa xam ne affaire dëgg la waaw. ci euh, wax ji nga xam ne moom lañ dégg ñun ñëpp yéeg nañ ni dafa feebaroon feebar bi nga xam ne moo di drépano moom moo ko yóbbu est-ce que yëgoon nga feebar bi wala feebar bi est-ce que yàggoon na ci moom. feebar bi rek feebaru ñaari fan la rek mais du feebar bu tax ñuy wax feebar xam nga gars wax rek mais ñoom ñëpp xamuñu nu mu demee. waaw ñu ci xam nu mu demee dañ leen di compter waaw. kon nan la demee. ah ni mu demee mooy feebaru sénégalais feebaru ñaari fan ñetteelu fan bi mooy sunu borom def li war mooy li ko dal nii tey. kan nga kañ ga gëj ban moment wala ban jour nga gëj a dégganteeg moomu. barki démb rek déggante nañ WhatsApp ñuy préparer suñu saison 3 barki demb rek ci mujj. waaw yéen a ngi woon ci wàccaay saison 3. waaw ñu ngi préparé ah. mais gis nga saa ni mu demee saa yi waxu préparé waxatuñ ko waaw. tey jii est-ce que du ngeen doon toog mu leen di wax ne dafa am benn feebar bu nekk ci biir moom. non loolu moom xam rek yaa ma gën a xam waaw ah. mooy ah. feebar bi kon est-ce que du tey nga koy doog a yëg yow sax. waaw mën naa ma mën naa ma waaw. Ah. feebaru Sénégalais rek en tout cas. lan nga jotoon ak dund loo xamante ni marqué na la loolu moo la lépp ma marqué ci moom lépp lépp lépp lépp. parce que dundandoo nañ lépp ni ma la ko waxee suñu saison 1 ba suñu saison 2 dañ dem ba bokk ndey ak baay dem somon nekkandoo fa pendant des jours di defandoo lépp di tëddandoo di yeewandoo di lekkandoo di naanandoo kooku théâtre booleetuñu frère moo ñu boole mais pas ay cinéma yi nii booleetuñu. dañ ñu wax que ni koo wax rek daf naa la dafa jullite woon Virginie moom daj ñëpp a jullite. ñëpp a jullite mais moom da cee rawoon du tooñ du dugul yoonam nekkul du wax lu yoonam nekkul kon est doon ni mu meloon ci série bi noonu la mel dëgg-dëgg jullite bañ a tooñ yam ci yam ci place am. du tooñ kooku tooñam entre ñun la suñu biir entre acteur te ay acteur ay comédien fu ñu nekk waxtaan ruubee dina fa am waaw entre ñun la bu génnee ci mbéy bi du xool kenn waaw. bañ la bañ la ba nga yëgee nouvelle bi am na benn image am takk bu ñëw ci sa bopp ban image nga fàttaliku boo xamante ni ba léegi doo ko fàtte. mooy image yi ñu commencé tourner depuis moom ba léegi image yëpp ñëw sama bopp tey. depuis saison 1 ba saison 2 ak yi ñu gisante ci diggante bi yëpp ñëw sama bopp tey. yan kàddu ngeen mujjee échangé. kàddu yi ñu mujjee échangé mooy suñu préparation saison 3 mooy barki démb rek ñu ngi déggante whatsapp di ci wax di préparer di fàttaliku bu ñu nekkee somon et tout waaw. boobu xamalu la dara ci feebar. non parce que boobu déggoo ma la feebaru sénégalais la feebaru deux jours la affaire bi taxul ñu naan feebar parce que sonalu ko jàpp ko waaw. bëri na si li nga xam ne moo di aar bi tey jii moomoo mii nii nax nañu doon xale bu ndaw boo amee loo xam ne yaa ngi koy dénk comme message lancé ko sa mbokk acteurs yi ak ñi nga xam ne tey ñoo ñu bàyyi xel lan lay doon. waaw affaire yi gaw ma ne yàqante am na ci ah, parce que suñu borom moo ñëw rek ay cadre da yàqante parce que koo jurul jëndoo ko carrément munoo def si moom dara quoi pour man suñu borom moo ñëw ekkat bësam bësu dee rek moo dul raté quoi mais bësu lépp mun na raté mais bësu dee du raté waaw. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax ci ci répondre bi nga xam ne répondre nga ko suñu ay question jërëjëf